Euh, monsieur Ndiaye euh, tey jii ni tribunal arbitral sportif euh, joxe na benn décision pour ñu réintégrer kii di union sportive Wakam yéen ñi nga xamante yeneen supporters u Stade de Mbour nan ngeen gisee décision boobu noonu. waaw ñun moom waa Mbour décision bi li ñu ko gisee mooy dañ ci am tristesse ak naqar ndaxte kenn umpalewul li fi xewoon 15 juillet. Euh, ñu xëy di jour au lendemain même pas 6 mois ñu ne ñu réintégré nañ ci US Ouakam ñun affaire la boo xam ne daal ñu ngi koy naqarlu di ko méttitlu wax dëgg si yàlla. décision bi ko jotee ñun bi problème bi amé drame bi mu amee parce que je parmi les victimes té amna lo loo xam ne nit ñi seetluñ ko d'une part moy bo xolé drame bi ben xalé bu ndaw déwu ci à moins de 20 ans jëm souf déwu ci parce que là j'étais là-bas ci bir supporter yi xalé yi mën naa ne man ma len sauver xalé yi man ma len génné stade bi. moment bi may génn dernière dernière dernière deux gosses yi ma dese woon ci la kii bi fondré wu ma bokk ci ñi cité woon bon là man maa dund li nga xam ne moo fa nekkoon comme événement ak ñi ko fekke ak ñi ci gaañu parce que affaire bi doon na wootu doon na gën a pire que li amoon parce que tribune bi bi ñu demee ba teg ñu pression ba ñëpp daw si waa Wakaam di sànni xeet ñu ñëw daw ñu romb gémi yi devant ci kanamu gémi yi laa ñun dem nañ ba mujj gi mënatoo nooy yi ça di dire que pression am na. ba nga xam ñun dañ doon jóg pour sauter tribune bi pour jéggi comme ndox parce que nit da nga naan ndox la bon ci moment yooyu nag ay yuuxu rek ngay dégg man dama koy xool comme loo xamante ni tey tragédie la boo xamante bu extra bu doy waar la moo tax tribune bi ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu éclaté noonu moom moo sauvé presque doomi mbuur yi mais on aurait avoir plus de deux cent morts yoo xamante ni tey ji dañ doon tëdd du ñu xam lii lan la mais huit yi ñu perte noonu rek dafa doy waar bon tas bi mu ñëwee ñun dañu def bi bi affaire yi amee dañu jël suñu responsabilité nous avons trois plaintes pratiquement adresse à la procureur fédération Nous avons ko jox ñu Nous déposé mais fédération dafa def sanction sanction yi mooy dafa ñëw amende 10 10 millions relégué en national Vous parlez sanctionner leen ci final bi waa des critères. ci critères. critère lañ jëloon arrestation au niveau du procureur boobu ñu am arrestation yoo xamante ni def nañ ko ba tëj leen ci kaso bi waaye ñoom décision yi ñu jëloon ci critères yañ nañ ko jëlee woon ba nga xamante ni war nañoo teg loolu daan ci wakaam sept ans ah ñu toog quelques deux mois ñu ni léegi waa ñëwaat nañ ko mbuur yëpp di jooy ci méttit xam nga ñu ni wàññi deux deux ans rek mbuur muy mu nekk naxar bi ñu toogee tey jii ba wakaam seen président daal di mën a ñëw am mat gu day ni am xam-xamam ànd ak i mbokkam ñu dem déposer au niveau de la tasse waaw bi ñu demee ba taas ñëw taas dafa am loo xam ne sénégalais duñ ko wax ñoom duñ ko wax waa fédération ou la Pro yaa nga lettre boo xam dañ leen ko adressé parce que taas aspect sportif bi rek lay jugé bi ñu jugé ci loolu ñoom dañoo am problème mooy ah ñii de war nañ leen daan lañ lañ def ba ñuy relégué leen ba ñu national dañ leen a bind lettre laaj leen ni leen est-ce que vraiment yéenay responsable yéen waa fédération parce que terrain bi ñu fubale dañ ñu nekkul ci ay normes ñoom ñu ni waaw ah sécurité bi dañ ñu woon doyul ñu ni waaw kon yéen vous êtes déjà sanctionné kon wakaam mënul ñu koo sanctionné parce que yéenay fautif parce que ñun ci aspect juridique bi la ci ci ci juridiction wu sportivité bi rek lañ nekk ci noonu ñoom ñu xam ne def nañ faute grave pour ñu bañ a wu lan la ñu def ñu bind leen leet neen est-ce que mën ngeen a réintégrer wakaam au si de la au sein du Ligue 1 ñoom dañoo affirmer ni oui mën nañ ko. foofu la danger commencé lan motax ñu ni wi bobu moy xamna nañ ñom ñoo def erreur xamna ñom ñoy coupable xamna ñom ñoy responsable de tous les faits wakam à part ñu ñu assassiné ci côté juridique bo xamné sénégalais ci procureur ñom responsabilité bi ñu jël yépp moy nangootu ñoo àndoo si benn responsabilité. dama am luma bëgg préciser rek moy ñun nu am am euh, wakam amuñu ak mom problème euh parce que xeyna na certes la xewon suñu digënté ak mom la mais ñun lañu warona def suñu digënté ak wakam defoon nañ ko ci walum yoon bañu arrêté ay nit ci ñom ajoon leen 7 ans wañu ko 5 ans ñew ñom ñu def appel tas, biñu défé appel ñom ak fédération ñoo dem fédération mo présenté comme parti civil, mais fédération d'après ñun suñu information ñam mom demul ci procès ba té ñun xam nañ né lepp complot la ndax fédération bu fekkone na tey bëggul tas ñëwaat taas du ñëw ndax tas euh, déggal man tas wakam is wakam is wakam du ñëw ndax is wakam dossier bi nga xamante ne moo ko incriminé fii Sénégal bu fekkoon ne tey waa fédération ñëw nañ jël dossier boobu ñëw Mbour giseeg waa stade mbuur laaj leen ñu jox ñu jox leen euh, peut-être ay certificat médicaux euh, médical yoo xamante ne ci ci ci blessé yi la bokk jox leen ay photo ñu yokku ci jox leen ay vidéo ñu yokku ci xëy na dossier ba dina noon am beneen tournure bu dul bii mais ñoom dañoo dem wan wakaam yoon bi mu war a jaar ba pare jël dossier ba allégé ko ba nga xam ne bu ñu demee taas taas ci dossier rek la ñuy sukkandiku dossier bi lañ xool sukkandiku ci liñ leen jox ci lañ tiim àtte mais li nga xamante ne moo incriminé Wakaam Sénégal bu ñu ko yóbbuloon taas du ko mën a mës indiwaat ñun nag suñu euh, naqar yëpp dañ ko jël teg ko ci ko waa fédération ak waa waa waa waa gouvernement bi parce que lépp ñoom la. waroon nañoo xool aspect technique yëpp ak lan lan laaj aspect moral yi yëpp ñu xool ko doo ko répondre mais bi ñu répondre wii léegi ils ont des problèmes xanaa lu mu dee dee bu loolu ñëwee waroon nañoo waroon nañoo inviter tous les présidents de club.

ak euh, taas amatuñu lenn lu ñu lii ak fédération bu dul ñu xaar suñu résultat te loolu lañ mës a def nit mësul gis ñu déclaré wu dans les télé mësuñoo def dara à part marche bi ñu maatoon pour enterrer suñuy moor et puis pour mu yem fi euh, jàngat bi ci seen euh, fédération ak Ligue Pro waroon njëkk am mooy ñun mbuur li ñu doon defal ñun li ñu doon defal mooy doomi mbuur yi huit ñoo ci dee quatre cent blessés ñun loolu dafa waroon nekk loo xamante ni. ñun mën nañ koo maye suñu deret pour sénégalais pour Sénégal jëriñoo ci pour le monde jëriñoo ci sport mooy ñu xool ni dooyu mbuur yi deekat sauvé nañ ñi waroon dee suba ba problème yu mel nii jamais moo amati cee saat yi loolu lañ ci waroon tirer conséquence loolu lañ ci waroon tirer mooy à jamais comme doomu mbuur yi sauvé nañ parce que mbuur moo yàgg sauvé Sénégal ci yu bëri nit ñi dañ la ko dul wax euh, Demba Diop biñ dee saat bi fi la dëkk dañ ko assassiné ci problème mbuur rek ci xeexal mbuur rek xale yii dee tey jii seen maam la ci biir saatam boobu lañ deewee tey jii ñun dañoo doon sauver euh, dañoo doon sauver nation bi ba pare sauver humanité bi yëpp ba nga xamante ni ci saat yi dootu ci gis drame bu benn nii léegi nag fédération ñu dellu si mooy ñoom seen irresponsabilité yóbbu na leen ci championnat bu musul am ci monde bi musul am ci àdduna ci ñoom lay dale moy championnat à 15 équipes defe naa xana ko nit gatt gatt xam-xam di nga war a xam ne loolu ñuy fuwal benn équipe exalté fële tok di xaar kooku c'est catastrophique benen bi moy championnat bu démarré à 8 à 10 journées nga bëgg a ñëw rattrapé wu pour duggal beneen équipe mu war ko dabé déjà les présidents du club fofu dañoo ñak fayda dañoo ñak fayda parce que duñ lañ leen a nawloowul te ñom ñoy jël sen millions diko sacrifier ci sport senegal bo xamanteni tay ji ñom ñi gère ligue pro bi amul lenn lu ñu apporter ci solution. lu man kese bokuma ci moko gën ndax wakam lu way mëna waxit même ñun bu fekkee jàppaluñu leen dara ciow lu ñoo andi ndax ñu rek ñom ñoo football ñu mëna ñu 1-0 ñu kunu di supporter ñun ñu mëna a leen ñoom ñu commencé sanni xeer parce que man limay wax dama ko féké sanni xeer ray fa ay nit ba paré agresser fa ay nit nangu seen alal affaire bi nekul affaire bo xamantene ñom dañ ci bëgg raxasu noonu noonu noonu wakam mënu ci gënné noonu. parce que daf ci am part de responsabilité bu rëy rëy rëy parce que tamit lu waay mën a wax fédération même bu fekkee ñoom ñoo organiser match ñoom ak lig ñoom rey ñu kenn de waa Wakaam ñoo rey loolu tamit il faut mu leer ñun nag li may wax rek ñun mbuur amuñu benn xolu rancune si kenn nekkuñu fii di jël affaire bi naan diw la jëmale alaxira dañoo bëgg Sénégal ñu teg ko ci yoon sanction yi war a dal ci kaw Wakaam mu dal ci kawam football bi mën a avancer mais li ñu ko bëgg a doxalee nii bu ko defee du jëmale football bi kanam te mën na indiwaat leneen. li xew keroog 15 juillet ku mu yeewul dara doot la yee si àdduna te li ñuy bëgg ñoom bés bu sottee huit morts moo amoon mais lii amaat war mën na mën na ëpp huit morts parce que boo bëggee jël am taxañ ko indi ko mbuur nii nii nii si circonstances yi sawaay beneen jëyi mën naam bu raw bi amoon fële. man de damaa gaañu victime laa j'ai failli perdre mes pieds mes deux pieds heureusement intervention yu baax moo fi bàyyi man de bu mbuur yëpp baaloon man baaloo ma. ndax baale woo. que dama ko mënut. parce que li tax mënumaa baale mooy baale dafa am ay normes yooy baaloo te bi drame bi amee ba léegi wakaam talu ñu bi ñuy suul suñuy doom taluñu ñu fédération talu ñu ligue pro taluñu ñu ñoom ñëpp wakaam mu ngi nekkoon ci ay lu ko génne mooy gis nga li nga gis ni dem ba ba ba ba ci kaw di daas di jéem a lijjanti lu ko ci génne bi ñu génne ba ñu lijjantee ba pare ñoom ak seen jaraaf yi ñuy menacé ci responsable jaraaf bi jaraaf Youssou Ndoye di menacer waa Mbour devant tous les sénégalais. mu ngi woote jàmm fu mu toll nii. dañ koo xas nee na Mbour dañ koo xas waa ñun dañoo yem ci xas wakaam dañ ñoo reyal juróom-ñetti doom dañoo war a xas wakaam sax waa moom bu doon mat na bu doon jaraaf bi ñu ko waxoon tey jii mat na ci moom moom dafa waroon jël loolu par humilité mu xam ni ñii kat dañoo deele c'est normal ñu waxee noonu mais moom dafa jël loolu utiliser ko pour wane boppam. dini léegi nañ leen bàyyi sinon nañ dugg seen xàmmi maam pour waa Mbour xam ñoom ñooy ñan xàmmi maamam yooyu jaraaf Youssou Ndour xàmmi maamam yooyu da ko waroon delloo yaraat ko njabootam ba dootuñu rayati xàmmi maamam yooyu muy wax da ko waroon jël moom mu am teggin ak yar ak xam liñ ko fa lan la pour mu mën ci éduqué wu pour njabootam mun koo xool waaye nag ñoom ñooñ seen bopp dama naan mburu foofu ko fëriñ jaraaf Youssou Ndoye moo gën a irresponsable ku irresponsable ci àdduna bi tey buy oote jàmm xasoon la démb oote jàmm rayal la démb oote jàmm jaraaf Youssou Ndoye moo gën a bon ci kilifa jaraaf yi am ci Sénégal man maa la wax lii parce que daf ñoo jam ci xol dañoo ñëw moo mujj ñuy xas di ñu traité de n'importe quoi naan ñu way su fekkente ni waa Mbour noppiwuñu ñu ñu lay menacé wakaam ngay toog menacé waa Mbour man waa Mbour waaye wakaam bu mu mënti jekk bu ma la mënee faat dama lay faat pour mu leer que juróom lañ ma rayal doon ma yóbbu àllaaxira damaa mucc nii rek daal di ñëw toog jàmm boo koy woo da nga ko laaj ci moment yi mu précieux moment yi mu baaxee nga ñëw defe ko fa mais doo bàyyi ba rey doomu jàmbur yi ba pare ñu suuli leen ñëwoo ba mat juróom benn weer ba ñu àjji sa équipe ba ñu naan léegi dañu war a footballaat championnat nga war a jëlaat say supporter toppaat sa équipe di di xumba ko dagan nga ñëw naan da ngay baalu si àq waa Mbour daf ñoo yàpp fédération yàpp ñu Ligue Pro yàpp ñu dañoo wegul waa joxuñu ñu cër joxuñu ñu respect te fi ñu yóbbu foolu Sénégal kenn mu yóbbu ko fa parce que ndaw yi gën a tuuti Sénégal ñoom ñoo yore footballu footballu Mbour jii mooy ñi nga gis nii ñoom ñoo yore stade Mbour dañuy nii du milliardaire newu fi millionnaire nekku fi ku am xaalis nekku fi ñun ñëpp dañoo dajaloo doon benn buum rek di jàppale suñu équipe fu ñu dem football boo ko xoolee tey jii euh, ci innovation li musul am Sénégal da nga koy gis xoole bis bi ñu am 85 millions boo xoolee Barça di ci wàcc Real di ci wàcc équipe Afrique yi amuñu ko ñun ñoo ko am kon dañoo innové dañoo liggéey liggéey bi ñu liggéey bëgguñu lu ñu ko yàqal du wakaam moo ñu ko war a yàqal du waa wakaam ñoo ñu war a freiner au contraire dañuy gën a may doole suñuy doom yi ñu suul ñun ñi gaañu woon ñun ñooy jugaat demaat ci président bi joxaat ko suñuy doole joxaat ko suñuy xam-xam joxaat ko suñuy kàttan lépp ba nga xam ne dañ naan ko dara duñu découragé parce que mbuur dafa war a àgg fa mu war a jëm àggaguñu dañuy doog a waaw rek mooy dañoo bëgg ñaari instance yëpp ku si nekk li nga war a def nga def ko parce que dafa am sanction judiciaire ak sanction sportive sanction judiciaire na ñun ci jàpp ci ñu wax mais sanction sportive bi ñun moo daf ñu daf ñu daf ñu soxal parce que US Wakam lañ doon footballal US Wakam tey jii bu fekkee ne dañ ko bëgg a indiwaat ñun US Wakam la ñuy footballaatal te loolu waa Mbour pare guñu pour accueillir US Wakam fii Mbour si circonstances lu ñu bëgg mooy fédération beeg ligue bi ak ak gouvernement nañ xool li ñuy def bu baax a baax a baax a baax ndax lii ñu ngi koy wax mais bàyyiwuñ ci xel dafa mën a jur leneen nañ xool li ñuy def bu baax balaa ñu cee dugg. sànq tudd nga fii sa démission lan moo waral démission boobu noonu. waaw démission mooy li ma leen wax fi rek. parce que man munu ma munu ma nekk président comité supporter stade de nekk dund la 15 juillet dafa xew ñibbi si mbuur xam waa Mbour lu ñuy dund li ne seen xol yëpp ñu bëgg problème bi bi mu amee ba léegi du waa Wakaam du waa fédération du waa ligue amul kenn ku fi ñëw jaale si mbaa nga jéggalu mbaa nga wax wax joo xam ne sax seddal na xolu waa Mbour ñu ngi gis ay ay ay ay ay membre fédération bi ñoo xamante ne ay ay personnalité ci fédération bi di gën def ay déclaration yoo xam ne dañu mel ni ñu kokkali la personne de Ablaye Sow di wax wax yu ñàkk teggin ci ci télé bi mel ni li li dal waa Mbour safu ko wala neexu ko xam nga ñooñu ba ñu bëggee tey indiwaat wakaam teg ko ko dafa mel ni naan waa Mbour kaay leen ñu indi leen wakaam ngeen fayu te ñun loolu taxu ñoo jóg encore une fois ñoom li ñu bëgg mooy indil ñu wakaam ñun ñu fayu te ñun loolu taxu ñoo li ñu bëgg mooy nañ jël football bi teg ko ci yoon problème am na ñu situer les responsables ñi nga xamante ne ñoo def erreur ñu ne ñii la ñu sanctionné leen ñu continuer suñu sport ñun loolu rek lañ bëgg. lii ñuy gis ni yëpp commencement la dafaguñu dara suñu demee ba ci kanam la ñuy xam ni liggéey liggéey la tudd beneen bi mooy dafa am beneen aspect bu ci amaat bu extraordinaire mooy soo ko xoolee hmm, dakaar quand on football Sénégal dafa yemoon dakaar rek Dakar rek xoolal ñoom fédération équipe bu nawetaan bu leen neex rek mën nañ koo yéegal Dakar équipe bu ruq bu leen neex mën nañ koo yéegal calculer l'équipe yi da nga jël ay pikin ay Géejawaay ay ñaari tali ay Ngor yooyu yëpp ngay gis biir Dakar la yemoon ñun dañoo innové xëccoog ñoom nangu lu bëri ci ñoom indi département Mbour équipe professionnelle ñoo nekk Mbour da ngay jël Mbour Petite Côte nga jël stade de Mbour nga jël Jambar nga jël Kër Madior ñu ne deuxième capitale footballistique loolu liggéey la boo ko xoolee ñi doon xeex ak ñi doon xeex ak coupe de la euh, euh, ligue bi nii yëpp ay dooyu Mbour lañ en commençant par Saliou Samb le président du stade de Mbour Mbaye Diouf Dia te tout le temps ñoom magu yi tripoter jaar ci kaw parce que dañ naan la état bi liéewul ak politique non l' état doit prendre ses responsabilités suñuy milliards ñun askan bi moom la ñuy jox waa fédération suñuy ñoom la ñuy jox ñoom ñu ciy def ay prestige suñuy milliards ñoom la ñuy tukkee suñuy milliards moom la ñuy fayite moom lañuy lekk ñoom ñëpp ba pare toog liggéeyuñu mënuñoo fay équipe mënuñoo fay kenn dara ba pare ñëw naan way léegi football bi dañoo war a xaar état pour mu dugal état moo jël responsabilité foofu bu ñu sañoon ñoom dañuy wàññi équipe bu mbuur yi pour muy desaat Dakar. quatorze régions moo am ci Sénégal quatorze quatorze yooyu bu ci nekk war na cee mën a gis boppam mais boo jëlee équipe bu Dakar yëpp nga jël bu dee équipe yi euh, quatorze lañ nga jël presque dix yëpp wala onze yëpp wala kii nga sànni Dakar champion Dakar lay yem mooy tax loo ci gis léegi nag bi département yi commencé jël euh, bagages yi ñoom xam nañu ça fait mal ñu bëgg kii yi da koy ciy gis sax moo tax Wakaam fan la nekk du Dakar dañoo def le tout pour indiwaat ko fàtte nañ wii moore dañu bëgg ñu ñu fàtte ko duñ ko fàtte fàtte nañ blessé dañu bëgg ñu fàtte duñ ko fàtte suñu trophée bi moy suñu premier trophée bu ñu wara duggal ci bibliothèque mais dañ ko jël ak dret dañ ko jël ak ay bakken da ko jar wa wakam bobu dal légui dañu wara tok rek mo mu ñëwaat rek comme si ne rien n'était football euh, euh, jeex na nit ñi dee nañ enterré nañ leen sul na la vie continue pas de responsabilité état am na ci responsabilité xanaa ñun bu ñu toogee kon ñi ñu emprisonner dañ leen wara bayyi bu dé libéré nañ ñële il faut que ñu cité yi responsabilité responsabilité man dama koy delloo fédération dama koy delloo waa Ligue Pro Sayer Seck il e responsable je te wax bu baax ba ngay leer Sayer Seck il est responsable Augustin Senghor il est responsable ministre Matar Ba il est responsable parce que ñoom ci kawam la ñu tegu. lan ngay xaar si ñooñu. Euh, man li ma ci jaaxal mooy tekkaayu la ministre bi sax daf maa jaaxal ministre bi waroon naa ñëw Mbour. affaire yi amee ba tey ñëw fi. man la ministre bi man gisaguma ko Mbour. déggaguma ko mbuur gisaguma ci mu yëy yàbbi wala mu àddu ci waxu ci dara ba léegi président jaale autorité mbuur yi nga xam ne yaakaar nañ leen jël suñuy doole jox leen commençant ci Tanor Dieng commencé ci Mamour Saleh ba ci Omar Youm gisaguñ ci kenn mu àddu ñun daal xale yi ñun daal ndaw yi ñun ñi gëm suñu bopp ñun ñoo ciy nekk àddu mu jaroñ suñu bakken mu suñu bakken la ca la ca dina na nekk huis clos ci stade de Mbour Wakaam dina ñëw mbuur na nekk jàmbaar euh, Wakaam na ñëw Mbour na nekk Mbour Petite Côte ci coupe du Sénégal yi ou coupe de la ligue yi ko tiire mën naa mu am équipe mbuur man de ma part personnelle li may def man maa ko xam bës bu Wakaam di ñëw mbuur li may def man maa ko xam du ma ko wax sénégalais du dëgg xam nga ko naroon pett bakkenam yàlla musal la nga gis kila la rey nii war a feetuwaat ak yow tëgg a ko fecc nii man ma nangu ko. non bu ko mbuur yëpp man ma man Pël Wade man. nit ñi dañoo xamul ne affaire bi dafa dépasser frontière mbuur fimu toll ni mbuur département da cee duggal loxom mbuur commune mom waxatuñ ko te supporter lambda bi nga xam start. du dem stade du sétane football da cee duggal loxom affaire bi nekatul stade de mbuur ak wakaam dafa nek population mbuur ak wakam te population mbuur man Alassane Ndiaye en tant que personne mënu ma leen téye bés bu ñu jógoon pour def ben affaire man mënu ma leen kon nak loolu ñun ñu ne dafa wara am mais dañuy ñaan ñi nga xam te ne ñoy suñu njit ŋànk suñu football ak ñi nga xam ne ñooy suñu autorité dëkk bi ñu tel cee jóg fay lakk gi balaa moo balaa balaa moo avancé man foofu laa waxee li waral sama démission yëpp loolu la affaire bi dafa dépassé ñun ñun ñun ñii suñu compétence ñun supporter stade de Mbour yi nga xamante ne ñun ñoo ŋànk équipe dafa ñoo dépassé dafa mbuur gépp la ak département bi moo tax ma démissionné xam ne lii man du doon loo xamante ne tey mën naa ci dara li ma bëgg nag mooy balaa yooyu yëpp ñu ci yàgg nañ régler problème bi une bonne fois suñu football bi continuer loolu moo waral sama démission. est-ce que président Stade de Mbour accepté na démission sa démission. waaw sama président jox naa ko lettre bu mu signé ko démb yóbbu naa ko TFM ba wane ko fa accepté na sama démission parce que tamit moom euh, suñu kilifa la waxtaan nañ début da ko doon bañ mais waxtaan nañ bi ñu toogee nangul na parce que man moom mu suñu réeroo si dara. Euh, di ko féliciter o passage si liggéey bi mucc aci mucc ay bi mu defal suñu équipe bi ndax dépp mu yore suñu équipe bi franchement parle équipe bi kaw rek la jëm mu ngi ciy def lépp lu nga xamante ne euh, wax dëgg si yàlla euh, ñun xaa nga xaar ci moom di ko gërëm bu baax ci loolu di ko remercier encore une fois di di leen yokkal benn affaire waa Ndakaaru dafa mel ni football bi jamono yi ni mu nekkee ci loxoy waa Mbour da leen a neexul ndax ba ngeen seetloo at yii yëpp Stade Mbour day day day day day day nekk ci trois premiers championnat bii ñu génn Kër Madior moo jël coupe amateur jël championnat amateur Stade de Mbour jël coupe de la Turekunda MPC jël coupe du Sénégal ça veut dire fu trophées nationaux yëpp mu ngi Mbour loolu dafa mel ni ñoom dalee na neexul te championnat ren Stade de Mbour mu ngi deuxième malgré suñu problème yi am yëpp ça veut dire ñun sport moo ñor ak liggéey mais ñoom nag bu fekkee ñun suñu suñu loolu moo leen moo leen moo leen metti tamit. nañ toog ñu wax ko wala ñu jaarale ko beneen manière mais bu ñu jéem a indil problème du ñu indilaat fii wakaam pour yeneen dee am fi ñu ne waa Mbuur yi nangam teg ko suñu kaw nañu dimbali ci loolu ñun sport moo ñu tax a jóg. non terrain neutre moom kooku buñ ko sax xalaat parce que ba affaire amee ba léegi kenn dégguñu ñu wax wax ju ñaaw wala wax ju ñagas wala ñu def dara mais terrain neutre foofu la ñuy xamee waa Mbuur parce que ñun loolu parewuñu sax pour xalaat ko di ko toog di waxtaan sax ko def ñun defuñu. defaanuñu ba ñuy jël di ñu yóbbu terrain di ñuy jaga-jage de ay xar di ñu yóbbu feneen ñun ay sénégalais lañ am nañ suñu terrain Caroline fay mu recevoir ay match coupe d'Afrique yaqul dara dalu ko terrain bi ñu ci recevoir ay match dimanche passé bi la ñu recevoir Sonacos huis clos mom nañ fexé ba buñ ko fi yëkkati ndax ñun xalaatuñ ko def sax xalaatuñ bokul sax suñu xalaat waaw est-ce que am ngeen moyen de recours euh, au niveau de la fédération fum mu toll nii ba affaire yi ba ñu joxee déjà décision bi moyen de recours bi parce que dossier bi nekkatul dossier fédération dossier TAS la tribunal arbitral du sport fofu lañ ko fofu lañ joxee décision bi parce que jéggi na frontière Sénégal mu nga mu nga mu nga mu nga mu nga mu nga bitim rew mu nga FIFA ñom nak fédération ñu ngi véhiculer information di gëmlo nit ñi né c'est irrévocable waxu ñu dëgg décision bi amna amna amna amna fuñu mëna défé appel tribunal fédéral bu Suisse buñ fa démé dañuy def appel mais fédération ñoko mëna def parce que ñom ño démon ak wakam ñun démuñu ñun liñu mën rek moy ñom buñuy dem mën nañ leen a den dossier diesel ko ba mu diis mais jëmuñ ñoo sax laaj wala ñu jëm ñu sé wo wala dara ñom ñoo ñu ngi doon di gérer seen yëf dal seen biir mais mais pour mu lèr décision bi amna appel tribunal fédéral bu Suisse merci beaucoup di leen jaajeufal euh, di leen remercier seen déplacement euh di leen xamal né Sénégal ben bop la kenn mënu ko xar ñaar nañ dindi affaire politique yi ñu bëgg a dugal suñu sport bi parce que lool tànk mo ngi fi sport bi du dem Sénégal nañ jël ku nekk li nga mom ñu jox la ko bu ko défé rek réew mi dina avancer.